3 amaan mbégte tey ñu teew fii ci Fass point de presse Ada Fass moo fi woo journaliste yi wala promoteur bi sàkk ko mu dëgmal tàkkusaan bu rëy du ne dimanche du la le 26 dimanche la ñuy wax fële ci arène nationale LP production collaboration ak petit promoteur ñu dëgmal saan bu rey Ada Fass ak Coly Faye yaakaar naa ne saan boobu ay ndaanaan yu bëri war nañ caa wane seen bopp LP production di xale bu ndaw ñëw ci làmb soxla ku ko jàppale ànd ak petit promoteur yi yaakaar naa ne journée bi amateurs yi ñu ngi koy waxtaanee Ada fas ak Coly Faye numéro 2 mu nekk combat espoir combat jànq combat boo xamante bi ni réew mi yëpp ñoo koy waxtaane comme ni mu demee woon démb ci soq ak franc léegi dañuy nuyu xale bi nga xam ne mooy Ada Fass borom Dakaaru léegi sax rax na ci Espagne ak yeneen réew yi bu ko defee mu nuyoog mbokku internet yi ñu tàbbi ci waxtaan maa lay siyaar bu baax la Mbappé di la bëgge auzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul joolaxa almisbah karawfal waaw maa ngi leen nuyu di leen fay di leen ziar di leen dalal waaw média bi yëpp ñu fi teew yëpp bàyyi seen yite. Mhm. teew ngir Ada Fass. maa ngi lay mhm. nuyu di la ziar. Mhm. di la dalal. nga dëgmal tàkkusaan bu rëy sa diggante ak Kulifay numéro 2 mais yaakaar naa ne question bi ñu war a njëkk a mooy question bi amateur yi posé lan moo waraloon voyage bu gàtt bi. waaw daanaka làmb ji moo ko laaj rek ndaxte du làmb làmb bu ndaw daal làmb bu ñu soxla la bu ñu yittewoo la. ak tamit am lu ñu fa doon entraîné am lu ñu fa doon liggéey lu ndaw rek. Mm. moo war waraloon suñu voyage bi. Mm. Mm. doole wala mystique wala expérience parce que la nga fa def bëriwul. non expérience expérience lañ doon yokku soxla ñu doole soxla ñu mystique expérience rek. te làmb bu ñuy teg jéego di dem dañuy il faut ñu yokk expérience yi. Uh-huh. macha allah am na solo bala maa wéyal yaakaar naa ne mbokk presse ku ci bëgg a tàbbali li nga xam mooy question rek ñu continuer ko Thier bu disponible rek mën ngaa doxal bu ko defee ñu wéyal waxtaan bi. dañ koy nuyu di nuyu képp ku ñuy bàyyi xel rek. Ada suñu première question mooy lan moo la dugal ci Coly Faye numéro 2. waaw Thierno maa lay nuyu di la fay dafa nekk champion nekk mbër daan ay champion bëri samay mag mu nekk sama mag jiitu ma si làmb moo def samay preuve am na ne champion la daan lool def naa samay preuve loolu rek moo ma dugal si moom du leneen. ñu bëri ñu ne combat bi est-ce que nekkul euh, risque ci carrière Ada Fass man dara nekkul risque sama kanam ndaxte damay liggéey damay entraînement hmm. sport la ñu wax du leneen. entraînement rek seul le travail qui paye waaw dañuy liggéey quoi te ay xale lañ. mais est-ce xam nga adversaire bi nga jël ak yi am am na différence. non man adversaire bu rëy sama la sama kanam samay bët ndaxte xam naa li ma mun xam naa li may def ak koo munti doon Coly hmm, Faye réewul samay bët te balaa ñoo xam arbitre bi sifflé gën suñu diggante incha allah. del xool <laughs> mu nekk mbër boo xamante bi nii képp ku mas a bëreel ku nekk da lay agressé dox sa kaw andi la ay jafe-jafe est que Ada Fass bu arbitre ku dagg jëng yi agressé la lan lan fa mën a fekk. moo daan amul problème ñu ngi koy xaar incha allah bu arbitre bi sifflé na ma agressé ñëw man lu ma ko wax yomb na. Hmm. bu taxawee daanu bu ñëwee daanu. kon lu ko arrangé mu daanu. lu ci combat bi si def daanu kon na taxaw rek daanu ñibbi. ah da baa xeeboo ku mii nii jiitu la ci làmb ëpp la ay takkusaan yoo xamante bi nii jongante na ko ci biir làmb baa ko. xeebu ma ko champion la mbër la sama grand la. mais qualité yu may daan si làmb moom ak qualité yu daan bokkul moo daan daal mm. xam nga làmb bu baax moo daan man damaa mën a bëre macha allah damaa mën métier bi. Mm-hmm. dama ko mën te ponkol jaaxaluma damaa yàgg mbapat si àll bi. Mm-hmm. damaa mbapat ba sonn. Mm-hmm. moo tax man ay entraînement làmb jaaxaluma quoi. ma làmb mënu maa dépassé. waaw mënu maa dépassé. nga dëgmal tàkkusaan bu rëy boo xamante bi nii amateur yëpp dañ ne ci la ñu taxaw nangul aada Fass wala ñu bañal ko parce que ci combat bi mu am diggante Coly Faye mu combat boo xamante bi nii daf la war a da war a libéré gars yi xaw ma yaay daan xaw ma yaay daan xaw ma da ngay niin danga war a libéré gars yi pour dem ci kaw est ce que xam nga li la koy may ak combat fi mu toll ci dayoo. incha allahu rabbi moo tax ñu jël vol bi dem uti expérience ñëw combat bi xam nañ fu ñuy yóbbu xam nañ lu ñu lu ñu mën a indil si làmb moo daan hmm. xale maa gën yow mi xale màgg na xale màgg na trois fois je suis encore jeune xale bu ndaw laa mais damaa gëm sama bopp moo naa Coly Faye 2 mag ma fuuf si làmb. jiitu ma si làmb est la jiitu moo ma mag fuuf. Hmm. Coly moo man xale laa. waaw mais damaa mën a bëre macha allah te le 26 dañu xam ne xale màgg na. yéen ñaar ku dàq bëre. man damaa yo tab ba sonn Modou man man ay ay riñaan yooyu noonu man man sama làmb dafa dafa wër. ba damaa daane prise bu nekk te incha allahu rabbi la 26 si kàttanu suñu borom eh, ñëpp nañ taf seen gémmiñ mais aada bu ma la déggee da ngay insisté ci mën a bëre gi mais moom dañuy xool ne ay kombaam day agressé adversaire ba pare dalay jàpp daan la ci biir bëre. bu ma agressé ma daan ko jël bu rëy. bu la yow mi ma daan ko jël bu rëy. sama doole laa ko teg ak sama fit ak sama gëm-gëm. ak sama entraînement. Euh, ndax aada mm. ñeme na arbitre bi la mu dox ci kaw waaw le 26 yàggatul. Euh, ay jours rek ay jours moo si des. ñu bëri ñu ne ñu bëri ñu ne euh, aada combat bi da koo tekki mystique trop. par rapport ak euh, liggéey bu war moom à 100 pour cent. Mm-hmm. mais nekkoon mystique la doo gis may ñàkk sa waay doo gis may ñàkk te en plus da gis may xiixat man xale laa damay liggéey liggéey moo tax ma paas dem am lu mu fa liggéey ñëwaat damaa gëm sport bu may xale ba léegi maa ngi si sport. waaw damaa gëm sport laa mujj si sport laa ko te incha allah si sport lay jeexee. moom nee na li nga ci am mooy wax ji ambiance loolu la lay bàyyal. mais jour si li fay xew moom moo koy def. amul problème moom Palla dafa bëgg a langaamu si xale bi mënut a nekk man du langaamu sama kaw xale laa. <laughs> yaa ngi yaa ngi xeeb ko li fay def pa moo la nga xam ne ni Palla man maa ko wax ba arbitre sifflé ku nga xam ne ni Palla paa nga. nee na li njaa bi da nga koy daw mënoo cee mucc. yéex yi bokkuñu man yéexu xale laa yor bu ma ko jàppee dana xam ne xale ko jàpp incha allah. li njaa bi nee na mënoo cee mucc amul problème ñoo ngi koy xaar. ñoo ngi koy xaar ci kàttanu suñu borom maa ngi koy xaar. mafia bu wow kong bi moo nekk ci ginnaawam tarkindaa yi nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci bis. hey tarkindaa yi. amul problème man FBI la àndal FBI. FB. FBI laay àndal ñoom lu ñu. kii li wax rëy na de. FBI moom na ànd ku ko neex man FBI la àndal te jour ba bu arbitre sifflé xam ne FBI laay àndal. ok incha allah. ayca gars yi ku ci bëgg. lamb ji benn cartel lamb ah, Modou ah, ah. Adam lamb gi des cinq jours ñu gis nga sol dégraisseur est-ce que sentiroon da nga diis moo tax mu dégraissé wu. Mhm. déedéet du diis instant bi dafa tàng te graisse bi il faut mu wàññeeku moom dafa jël graisse ne moo ko moom di sol ay ay ay ay ay ay jëmpuur xaw lu mu sol noonu. <laughs> sport dafa am lu mu laaj quoi dafa lu mu laaj sport dafa dafa fiir li dégraissé lii pour sama te sama koor la quoi sama yaram bi laaj xam nga rek laay nëbb. waaw laay nëbbu. acca waa Medina Fass Gueule Tapée ñëpp nekk sa ginnaaw lan nga sant itam. waaw sant yàlla rek sant yàlla ndaxte man ak booy yëpp ay génération lañ man ak ñoom ñoo fa woon Ndakaaru ñëpp ma xam amoon sens interdit fenn du Ndakaaru kese banlieue bi ak si àll bi man amoon sens interdit Sénégal ndaxte Sénégal ñoo ma bëgg ñoo ma bëgg quoi. waaw incha allah le 26 ay mbokk dina leer. moo am ay mbokk. ba tey lan ngeen di wax promoteur bi LP production bii di première tuusam mu décroché combat Ada Fass ak Coly Faye ñaari xale yoo xam ne dañu am yaakaar ci biir làmb lan ngeen di permettre promoteur bi mu collaborer ak Petit production dimanche pour mu am satisfaction totale ci bis bi. waaw LP Events Petit promoteur Idi seen DG. Mhm. maa ngi leen di nuyu au passage ndaxte li yombul ay ndaw lañ. ay ndaw yu ut lañ gëm seen bopp dëkk si réew mi. Mhm. tey jii bu leen neexoon ñu dem immigré mais fii lañ maa ngi gën a ñaax rek ñu gën a jàppante ñoom ñaar ñoom ñett ñu gën a jàppante ñu liggéey incha allah te incha allah rabbi le 26 lu ñuy séntu incha allah yàlla na ko suñu borom def arène nationale de fan yi daa bëri borom ku ne nee na moo ko moom ndax mbooloo ma kan moo moom arène nationale waaw le 26 suñu borom yàlla na ko yàlla na feesal lépp suñu borom moo mun quoi mais ñoo ngi woo Ndakaaru ñoo ngi woo Ndakaaru ñoo ngi ma limee rek damay juum ah day posé question aca non lu ndaw la rek lu ndaw moo ñu yóbbu woon foofu lu ndaw la entraînement bi laajowul ay un mois laajul deux mois lu ndaw la woon rek ndaxte loolu noonu programme woon nañ ko bu yàgg moom mu ngi woon toog di ma xaar waaw mu ngi woon toog di ma xaar 48 heures laa 24 heures laa doon entraîné 24 heures barki Serigne Bamba te xale laa ko waa man ay dem foofu def fa ay un mois quatre mois yëpp garaawul xale du noppaloo xale du sonn man xale laa waaw ay ca làmb ji mu lancer que fan yi gis nañ tamit mhm. daa ci siège yi waaw daan daa ci siège nga daanu daa ci siège mhm. ah tamit di mbëru penc di mbëru gox mhm. ah. ak lu mën a xew fas a looy wax supporter damay lancer appel làmb ji du ma lancer appel samay supporter kese làmb ji làmb ah. amateur yëpp laay lancer appel dine làmb ji ñun suñu làmb la ah. suñu suñu stade la bokk ndax de joueurs yi am seen stade football ñun dañoo am suñu stade làmb nga la waaye dañ ko surtout ko sàmm quoi. ñun supporters yi lañuy la ñuy informer rek ndaxte ñoom seen traite bu tàngee rek. duñ mën a téye seen bopp. ñu ngi leen di ñaan. ngir yàlla war a soli suñu bi moom la ñu am. Mhm. bu leen ko yàqee amuñu fuñ jëm. waaw nañu dimbali. Euh, ku sa mbër daanu. Mhm. nga encouragé ko yëkkati ko mu liggéeyaat. lu amee mhm. làmb yàlla na ko suñu borom mayaat ndam. ku sa mbër daan nga euh, nga jubile naa ko wàcc dem ñibbi. baa ñu suñu stade bi ngir yàlla. ngeen dañ ko ñaan rek supporters yi amateurs yi. Euh. ñun mbër Mm-hmm. waaw suñu stade bi ngeen sàmm ñu ko mm-hmm. ndaxte làmb dafa métti mm-hmm. tey ñi mbër bu ñu aj xoolal say waajur yaakaar si yow say mbokk yaakaar si yow keneen yaakaar si yow bu la ajee du am loo def tey da ngay toog du xoole tey ji loolu noonu supporters yi ñoo ko mën a xeex si mbër bi jàppale ko bu ñëwee stade toog setaan seen mbër ambiance neex la stade bi seen mbër daan ñu dem ñibbi. bala ngaa woote làmb ji live la pay-per-view ah kan la. mais aada ñu gis yow fii nga dëkk promoteur bi dëkk fii ki ñu ko tuddee dëkk fii muy maire Bamba Fall. est xam nga tey loolu lu muy def ci yow. bi diisul. bis bi diisul ci yow par rapport ak ah, loolu sant yàlla rek loolu sant yàlla Modou Anta déggoo ma la bis mënatu rëy si man. damaa bëri champion daan ko une minute xaw une seconde. Hmm. ñëpp doon coow. Hmm. lam mënu maa dépassé. Hmm. loolu damay sant di woo Bamba Fall di ko ne mu jëndal ma vin bloc billets. maire Bamba Fall maire Mbirna ah na ko jëndal ñaara diis rek baax diis diis waa Caaroy ñëw waa Caaroy ñëw non lamb ji man sama lamb du yàgg Modou Modou man sama lamb du yàgg danga daa vite fait de xaw ma bii laa wax vite fait bien fait incha allah. nga wax sa supporter seen avis point com la lamb ji daw pay per view ñoom ñëpp ñu dem jëndi code surtout am nga ay ay ay ci immigré yi way daani doole jes waaw supporters yëpp maani ngi woo seen affiche point com ah. lamb ji daw PPV la mhm. na gaa yëpp na jes bra bi surtout waa Espagne waa Palme fu ma nekkoon mhm, sama papa ah, ah, kii ni sax wëz wëz piicu mhm. sama papa Palme euh, Pomze sama grand Chérif ñooñ am seen fay waa Espagne bi yëpp sama dëkk maa leen di maa leen di nuyu au passage di nuyu dëkk bi di nuyu waa Ngaay Kajoor Kajoor yëpp maa ngi leen di woo si làmb ji bool bool yëpp jolof jolof yëpp waa Tayba waa Canaba waa Canaba Modou combat bi macha allah quoi ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax gars yi ñaanal nañu suñu borom moo des mooy jour bi incha allah suñu borom may ñu ndam. maa ngi gërëm ñëpp nag. Modou waaj nee bu takkee jaaj yi. waaw bu diwoo doomu taal bi. waxoon na ko seen diggante. nee na koli mi ci signature yi neex naa ñime. waaye tarkindaa bu takk jaaj yi diwoo doom bi. tarkindaa yi topp ko ne ko yow la oh neexut a ñime. Modou après laa may dinaa la wax. <laughs> waaw sa waay kooku dafa war a alterner 3 heures si ngoon 4 heures mu wàññi graisse bi tuuti. dégraissé yaramam. day dëgër. lamb sport laa doo ko demee nga ko la eh, mbër da ngay dëgër te incha allahu rabbi bu ma ko jàppee dana xam ne xale bu ndaw ko jàpp. ayca dernière question bi mooy waaw maa ngi sant di gërëm sama waa écurie sama waa écurie aw ma seen fay waa Fass Benno sama grand jili combat bu mu taxawee ba léegi dafa ba ay yiteem ñëw taxaw mu baax soose waxi noppi sama père El Hadj Koundoul suñu président